Mariama Sarr ku xam-xam na nit ko am rigueur la du wax ju ñaaw lu ko jëf kan lu ñu dégg fan yi si rajo yi si eh, eh, rajo yi ak média yi lu ñaaw la si si deru si Mariama Sarr Mariama Sarr du wax ju ñaaw ku xam nit boo déggee kàddu di nga xam ne si ki la jógee dee boo ko déggee dama la Mariama Sarr lu ma leer waxul wax kon am na kàddu ñoom boo ko waxee si Mariama Sarr day tas réew da waxuma dëkk day réew loolu kenn ko si si am penc mhm. wax ju ñaaw la kon Mariama Sarr bu soxlaa Kaolack bàyyi ku ne Kawlax na bàyyi ñes bàyyi ñes boo gën si Kawlax jeex kon na nga mën soxlaa Kawlax ne fàllu moom miir na bàyyi loolu du wax ju àgg du wax ju kenn nangu kon loolu dañ ko dàq xaw ma fu mu jógee mais du waxu Mariama Sarr ala kulaan ñaareel Mariama sar ñëpp xam nañu ak liggéey Mariama fi toog sept ans fi toog yëpp ñëpp gis fi si tali yaa ngi fi bëgg démo ñaar la inauguré garage Nioro gis nga dafa teew ci mbooloo Mariama Sarr mi ngi def stade bi Mariama Sarr social bi loo xamante bu tabaski jotee nga ba ba bi gën a ndaw ci population bi ñoom lay dimbale Mariama Sarr ndimbalam ci fu ne ci daara yi ci population bi si indi ci taalibe yi si se si imam ñëpp so kon Mariama Sarr ko yoo xam lañ ko jël sàlli ko na rek lu ko dégg li fi liggéeyoon kenn du ko kenn du parce que bu liggéey juróom ñaata ñu def suuf dara loolu yàqu la wax kenn kenn ko nangu kon daal li ma bëgg ki xoolul naa si xos nan mm. ñi ñu wax ñu wax luñu rafet si ñoom mm-hmm. mais bul jël nit ki seet luñu jaawam génn ko bàyyi denc rafetam mm-hmm. sala sala sa waxul loolu ñun mm-hmm. koy sànni Mariama Sarr dafa am rigueur Mariama Sarr intellectuel la jàng na ba fa jàng yem Macky Sall xam na kuy Mariama Sarr bokkut ak ñiy faraat nekkul koo xam ne day taxawaalu di wax wax moom jëfam bëri na waxam néew na loolu soxla si nit waaye di mbel si média am bëgguñ loolu Mariama Sarr ku bëgg si ko bëgg ak fulaam ak faydaam du defante dans le domaine du social tout le monde sait que Mariam Mariama est à équidistance des familles religieuses. chaque événement religieux on peut parler on peut citer la Tabaski la Corité, le Gamou le Tamkharit Mariam, tout ce qu'elle trouve à faire c'est de trouver des enveloppes pour appuyer ses familles religieuses et les imams la communauté musulmane de 1. Euh, grosso modo. Donc, lorsqu'on lui prête, euh, lui prête des pensions religieuses allant, jusqu'à dire que, voilà, elle a tourné le dos à Mirna Baye, disons que ça c'est fou Nous devons nous départir de certains propos. Parce qu'ici, ici euh, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des talibés de Baynes nous sommes tous des talibés de Shahmar Bamba, nous sommes tous des talibés de Elaj Malik Si. Mhm. Mariam travaille dans ce sens-là.